ci sama ñëw bi fii ci Touba li ko waral mooy ci ndigalu président de la république président Macky Sall bi ñu gisee ne ay jafe-jafe am na fii pour askan wi am ndox mu doy ci yenn quartier yu bari ci Touba mu ne lépp luñ ci war a def rekk nañ ko ci def looloo tax démb directeur général OFOR bi mu jógee Dakar Médina Gounass ñëw na fi def visite de terrain ci guddi gi wi mu départ Dakar ñëw fanaan fi pour euh, ndigal boobu ñu jox mu doxal ko li ci njëkk nag moom la ñuy wax mooy massawu askan wi nga xam ne fi mu nekk nii ñi ngi am ay jafe-jafe ndox ci seeni kër ak ci seeni soxla yu ñu war a jëfandikoo ndox waaye di leen wax ne loolu bi mu amee gouvernement bi ci taxawaayu OFOR jël na ay dogal benn ci dogal yooyu mooy juróomi forage ñoo fi paan ci fanweer ak ñeent yi nga xam ne ñoo am Touba waaye juróomi forage yooyu paan dafa am njeexital bu mu am ci manque ndox ci ay quartier yu bari juróomi forage yooyu bi mu paanee mu daje tamit ak camion bi nga xam ne moo war a jëli pomp yi ci biir suuf si ci biir ndox mi pour yëgal ko pour ñu seet nan la paanee ak lan lañ ci war a defar yooyu li nga xam ne moom lañu xalaat ne mooy paan bi ci pompe yi la pomp yi nag gis nañu bi ñu nekkee fële ci forage wu njurul bi pomp boo bu bees boo xam ne bii jëlee nañ ko Dakar mu ñëw ginnaaw démb bi ñu essayé réparer pompe fi nekkoon te réparation bi baaxul bi ma laajee ñi ko indi ndax mën nañoo yëkkati pomp bi pour essayer ko dem tegi mu ne ma pompe bi juróom-ñaat téeméeri kilo lay pesé looloo tax pompe yooyu pour jëlee ko ci biir forage bi remplacer ko il faut mu am grue maanaam ay lenge bu koy jëli ba pare pour génne ko pour ñu réparer ko wala pour ñu remplacer ko yàlla dafa def nag juróomi forage bi mu paane ñu am nattu lenge boobu nekkoon fii Touba di ko war a yëkkati moom tamit mu paan bi mu paanee ñu loué benn grue bu njëkk benn lenge yeneen ñaar war cee topp yeneen ñaari yooyu danañ ci boole yeneen ñaari équipe mu am ñetti équipe yoo xam ne yii ñooy sóoru juróomi forage suñ ko liggéeyee xalaat nañ ne fekk ginnaaw suba su amul benn accident ci diggante bi ñi juróomi forage yi danañ ko réparer mu commencé indiwaat ndox léegi mu am tamit yeneen juróom-ñeenti forage yoo xam ne liñ daan manque ci ndox suñ daan manque téeméer léegi xëñ na juróom-ñaar fukk wala juróom-ñett fukk la ñuy manq loolu li gën a jàmp moo doon forage yi paan dañ ko defar suñu paree jublu ci loolu wax nañu tamit ne war nañu jël yeneen mesure mesure yooyu mooy kuréelu OFOR bi nga xam ne moo nekk fii Touba ñu koy wax unité de maintenance de Touba dañ koy renforcer ci ay agent yu fi liggéey ki ko jiitee nee na mën nañ leen yokkal ñetti agent loolu incha allah dinañ ko def su procédure yi pare wax nañu tamit ñu yokkal leen jumtukaayu liggéey bi jiitu ci jumtukaay yi mooy camion citerne camion grue bu bees mooy lenge bu bees boo xam ne bi mooy dem di jëli euh, pompe yi loolu incha allah aussi lu jiitu li sax altine bi passé euh, déedéet alxames bi passé premier ministre def na benn daje boo xam ne bii jëloon na dogal boobu pour ñu jëndaat beneen camion grue suñu paree tamit wax naa leen comme yaakaar nañu ñoom ne ci problème yi ñu am xëj na électricité bi ñëw ñi mu ñëwee ak doole am na ci njeexital ñu seet tamit nan la ñuy defee fi nga xam ne mën nañ koo def ay panneau solaire maanaam énergie solaire mais loolu il faut que balaa ñu koy def ci benn forage il faut mu am surface bu mag pour ñu def mañ faa def panneaux solaires yi loolu tamit waxuma ne danañ ko def waaye wax naa effort nañu def étude bi pour seet ndax c'est possible pour ñu def ko su fekkee ne possible suñ ko defee dana am njeexital bu muy am ci énergie électrique bi loolu daal moo doon euh, tànk yi tey jii di gërëm autorité administrative yi ci seen taxawaay di gërëm aussi Maaw Rahmati ci seen taxawaay ak agent yi nga xam ne yëpp guddeeg bëccëg fi mu nekk nii ñu ngi liggéey pour que euh, ndox mi dellu siwaat ci anam bu rafet fii ci Touba jërëjëf. camion citerne yi euh, bi mu amee rek indi nañu juróomi camion citerne léegi danañ koy yokk ñu ngi koy yokk ba fukki camion yenn yi commencé naa ñëw yeneen yi ñu ngi déparé ci Daaka bi di ñëw tey jii ci guddi gi war nañoo yegg si wala suba incha allah ci suba gi. donc fukki camion citerne normalement. ak nombre de quartiers yi nga xam ne ñoo manqué ndox en principe su ñuy def ay rotation mën nañoo euh, euh, indil tuuti feex nit ñi nga xam ne ñooy manqué ndox.